gars yi salaamaaleykum gars yi beneen information yéen ñëpp gis ngeen ne danoo bind si internet bi daan ne Omaro takk na kii di Alima takk na jabar ay duul la bës la ñuy def mise en scène la yaa ngi dégg ay duul la ay fen la Omaro tëkkul Alima yaa ngi dégg dañuy def bës pour Alima ay bësam mag affaire yooyu noonu takku ko loolu bu doon dëgg sax xam nga ne yow Omaro kon tey nga de yow Omaro gis nga ci boppam Alima ni mu toll gis nga kii xottu taal yi gis nga kii xot kii dem bu loo doxotee Dakar visa lan lay tamponné directement Schengen nga embarqué Maroc jaar Brésil jaar Suède dugg Italie doo paas da ngay naaw rek alima mii di mel ne R4 bu gaare camion bu paan ki nga xam ne bu dee génn seen kër du jaar ci buntu normal bi garage oto bi lay jaar bu leen ñu yeb seeni morom nekkuñu fi de Miss Asien la Sénégal yi loolu laa bëgg ngeen xam ko ay duul kese la takku ko